xale bi gis nañ ko ci appartement loolu mën a wax parce que parce que li ci des moo koy àggal mais li ma mën a wax mooy presse bi yéen kenn duñ fay ndax bébé Aïda lundi lañ ko jëlee mais lundi ba léegi amul benn organe boo xam ne euh, poste kii wu ñëpp ci jàpp dara dalu ko mi ci jàmm maag yaayam ñoo nekkoon ak moom yëkkati ko waa bi ko see yaa ngi xam nga xale moomalu yàlla suñu borom heure bii démb nit ñoo ñu def lu bon woo ñu ne maa ngi kaw la maa yor ay man maa taal sama bopp def deux cent kilomètres deux deux heures temps laa ñu dem ba dugg kaw la di ko woo lu ñu jël mais imaginer ni nekk ci métti bi nga woo nekk ay da feeñ na benn kattan nga koy sànni man daal sama oto maa moom nii ba kaw ak ñaari xar jël ko pour péage bi Dakar kaw la ci deux heures temps laa mu àgg bi ñu demee il fallait que ñu jël brigade de recherche jox leen numéro booy bi ñu doon woo ñu woo ko ñu localiser ko ñu ne ko ci ginnaaw dama dund lañ loolu waaye nag lépp sant yàlla suñu borom ay dana xëy na peut être yàlla moo ko def ci xol nit ñi ba États-Unis sama numéro lañ jox mën naa ko ci bés bi dem ba États-Unis ba Angleterre ba Canada bu génnewul sarax ñeen ci kaamil di wàcce ñeen ci def mention spéciale commissaire Pikine ma dellusiwaat ci ndax jàmbaar la daanaka liggéeyam lay def mais day liggéey ci ñàkk moyen wax ko te dee police bi nañ leen dimbale jox ay oto yu baax comme euh, actuellement ni population bi débordé na commissariat bi ministre bi la laay interpellé rek mu dimbali waa Pikine renforcer seen ay oto jox ay moyens parce que léegi dañu jàpp ne Sénégal dootul ñun am na ñu bëri ñu ñu rax ñu ngi fi ci dëkk di def ay ñaawteef même pas un mois gis ngeen le temps dañ euh, kii nekkoon ñoom ñoo ko jàpp Moussa maa ngi ñaan une bonne fois mu àggale dimbali police Pikine renforcé ko ak média bi yéen ñi yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm leen sax dëkk bi ay na ba léegi a def kenn bàyyi yi ñëpp ñëpp ñëpp di remercier sama benn xarit bu ñu xaay ko ba deux heures du matin ñu ci ay ay ay ay kii ñëpp a ci dem yàlla leen yàlla jàppale yéen presse bi tamit kenn gënu leen yéen mënoo leen ñàkk Sénégal yéen mënoo fi ñàkk ndax li ngeen di liggéey li police di liggéey loolu ngeen di liggéey réseaux sociaux yi tas nañu ñuy posté ko ay da suñu xol dafa fees yeneen ni ci des nag xëy na peut-être dina ne buñ xëyee ñu bëri ñu dem jege ci commissariat Pikine moom commissaire bi dina wax ay fee yoo xam ne moom ñooñu ko gën a maîtriser di leen sant yéen ñëpp baax ak dëkk bi baal ñu fàttali ñu tur bi baal ñu fàttali ñu tur bi rek